dañu woo benn jigéen boo xamante ne jigéenu euh, bien sûr jigéen la mu ñëw témoigner et s'appelle euh, Naté elle fait partie de la famille classe A donc elle va dire un petit mot aujourd'hui effectivement à l'égard de sa sœur effectivement alors elle est demandée à nous rejoindre Narté la star Narté Tina c'est la même famille depuis Sen Petit Gallé kon waa BDC ay de. ah tey nga nekk loo ay. yéen a pour man jii rek nga ay. amul fa la. Jiba sa boy. Jiba. Jiba également parmi nous. Jiba daa takk takk na man tam. waaye takk rek artiste yi. ndaxte. dañuy la adapté.

Mesdames et messieurs, voilà Naté, l'artiste qu'on ne présente plus. Elle était récemment avec PNG à Jean Padouk le août et le août à Modiane, une première. Naté, qu'on revoit aujourd'hui ici encore une fois, c'est un plaisir. Alors Naté, ton mot de félicitations, ton à l'égard de ta sœur Jenna qui C'est vraiment un réel plaisir de venir partager, venir nous partager ce bon moment avec euh, notre sœur Dieyna kontaan nañu vraiment parce que bés bi benn yoon lay nekk ci àddina te ñu ngi koy souhaiter bonne chance di ko wax heureux ménage yal na leen yàlla la fal cat boole leen sutura boole ko moom jëkkëram ba kenn du xeet seen diggante. amiin jërëjëf. maa ngi nuyu tamit sama maman yi. ñi ma fekk Maman Jole maa ngi di nuyu bu baax di nuyu sama grande sœur Mia maa ngi bu baax moom tamit ak OMG ñëpp ñi fi nekk maa ngi leen di nuyu jërëjëf. merci beaucoup merci l'artiste. waaw fan yii am nañu a euh, deuxième dose macha allah ñaari góor lañu am. à l'honneur de waaw tous les artistes seront Monsieur les animateurs, dañ ñëw pour seetaan ni yow. waaye léegi jóg ay ca wàllu li di est demandé et sa femme Léna pour se rendre au ménage. jàppal ci loxo. ah jàppal ci loxo. wér sa jëkkër ah ndigalu jëkkër la. sa jëkkër sa jëkkër. tàcc leen ko si ngeen tàcc ko. mooy loolu moom américain. mais si ngeen. nga gisaat ko. dana lépp dof ci yow. dof ci yow ci yow. si kaw ci kaw seen bi salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñu fi nekk seen tur ak seen sant bon tey je pense que ñëwoon ci bisu suñu confrère muy Bril ak Dieyna donc yàlla def na tey takk seen bi ñu gars di wax donc di leen ñaanal rek. Doudou Faye xam nga yàlla dëgëral say lii moo leen dara bu yaatu ak li ñu bëgg si seen carrière tamit bon juste man moom brille personnellement sama sama frère la parce que mën naa ne damay commencé def musique ci moom laa doon nekk mën naa ne sax man maa ko daan bagel tu vois ko donc man ak moom sooy ñoom histoire quoi bu bis bu rafet mën na def lu dul ñaanal ko ñoom waa ko set a tout ba muy parce que boo mosul nga xool sama xarit artistes yi dañoo doon waar. bon je dis ça je te en tout cas maa ngi lay ñaanal sëy bu barkeel parce que mérite vraiment. c'est pas facile artiste jeune en plus être marié parce que c'est pas facile de gérer sa carrière tout ce je te dis c'est que du courage et félicitations encore je t'aime bébé.